بسم الإله يكفيني الأقدار يا الله سف البخاء به لي فيك يا الله بسم الإله أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بوك جوتي xarit yi am di jàmm yi ak soppe yi fu ci waay mën di nekk ci réew yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew partout dans le monde noo ngi leen di nuyu nuyu jullit nuyu islaam di ko tubee ci suñu xol jëme ko ci seen jëmm yu sell yu tedd yi te moo di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi leen ziyaara bu baax a baax a baax te jiital ci nuyu bi ak ziyaar bi xalifatul am li taaifatil muridiya cheikh muhammadul muntaxa atalallahu amruhu wa baqaau waaye di nuyu xalifa général kullu tijaaniya sëñ babacar si radiallahu anhu ak i rakkam ak Khalifah doomam ak képp ku topp ci ginnaawam rek di nuyu xalifa laayeen yi xalifa ñaseen yi di nuyu képp ku am cër ci lislaam moo xam imaam nga moo xam nga xam sëriñu daara nga ñoo ngi lay nuyu bu baax te dila la ziyaara waaye di jox wàccuwaay bi yelli ci yow te moy bi la suñu borom subhanahu wa taala jox waye di ma sawu coono yit wa daara ak coow yi dal seen kaw jamono yi yep ak fitna yek nattu yi di leen ñaanal suñu borom tawfiq ak taysir ñu yegg it seen sago ci jangal gi ni jangal ak di leen yar xamna serigne bi dina ci indi ay leral ca mujjuk emission bi insha allah rabbi di nuyu it kilifa aada yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ñaanal suñ borom matal euh, mottali seen mébét ci réew mi ci lépp lu ñu ci bëgg ci jàmm lépp lu ñu ci bëgg ci gën a sàmm valeur yu baax yi rek ñu ngi leen ñaanal suñu borom loolu jëm kanam euh, di ànd ak yéen seen émission waxtaanu diine fii ci Nasru Média TV ànd ko ak. borom nasru Cheikh Sérif Assane Kane radiyallahu anhu kon sëriñ bi bisimilah ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñiy seetaan. baad auzu billaahi mina seytaani rajiim wa inni u'iizuhaa bika wa zurriyyatahaa mina seytaani rajiim rabbi auzu bika min hamazaati sayaatiin wa auzu ginnaaw bu nu jiitalee sant yàlla borom bi tabaaraka wa taala te julli ci seydil wujud muhammad alayhi salaatu wassalaam santin te mooy alhamdulillahi alwahidul ahad alhamdulillahi ala kulli alhamdulillahi xaqa xamdi nu siyaar ni nga ko waxee léegi rek mboolem turux yi ak ñi ci bopp seen bopp Sénégal fukki yi ak ñeent waa diaspora bi New York Amérique sunu xarit dafa nekk yëpp France ak li ko wër xarit yi fi nekk ñëw Afrique ak sunu wóolër yi dem ba Asie sud bi ak noor siyaar makkatul mukaram ak sunu xarit yi fa nekk yëpp li ñuy diglu ñu ngi leen di jot ñu ñëwaat ci penc mi fii ci daara Nasrullah yow tey ji di àllarba niñ ko baaxoo defee toujours di waxtaane waat seen diine kem ñoom niñ ko sàkkoo di ko laaj la ci suñu xam-xam tol di ñaan suñu borom duñu fi soti lu ne yalla ne du am njariñ suñu joomé ñu jéglu yalla mi nga xam ne mooy jéggale di ñaan yalla jégalaale ñëpp di siyaar technicien yi ñu andal nek ci ginnaaw appareil yi nga xam ni moo tax ngeen di mëna gis di ñaanal yalla tawfiq ak sutura cheikhul khadim di la siyaar maa ngi dégg léegi sëñ soxna si la toñ khadim mudu bar ne ko no bokku turandoo khadim rasul la tuddu cheikh ahmadu bamba borom tuba yalla na defal len tawfiq yéen yep kon ñew ci barab bi tay ji fasiyene yéene waxtaan waa diine seigne khadim bu ñu yoy ñëpp te siyaar te ñaan yalla jamm ak bismillah jere jeuf sëriñ bi mu melni ni euh, dañoo defoon à ci astaghfirullah émission bi passé ñu bari seetaan nañ ko rafetlu ko lool yàkkamtiwaat sax mu ñew nga détaillé ci won détail yu am solo jàngale ci biir ci mën ko cee résumé que ni nit ki wërta naagu ci yërmande yàlla suñu borom ndax yàlla dafay wane saa su ne grandeur am ci digganteem ak jaam bi mu mel ni bañul ku ko tooñ waaye ku ko tooñ ba noppi sax ca lànk ba ñu tuub lay bañ ba tax mu ni bu leen naagu ci yërmande yàlla ndax inna allaha yaxfiru zunuba jamiha innahu huwal ghafuurur rahim nga yaatal ci lu leer lu yaat loo xam ni nit ñi dégg nañ ko te taata nañ ci lu bare bare waaye it nga leeraloon ci astaxfirullaa li muy jox ci ay xéewal ci aaya bu tedd boobu di astaxfiru rabbakum innahu kaana xafaaran ba ca anhaaran ja ba leeraloon ci nitu yàlla ki nga xam ni ñent ñi amoon tawat ku ne ñëw ci moom di di sàkku ci moom ñaan ci aw réewam bekkoor mu bëgg taw ba wàcc ba réew mi mën a naat jur gi am lu ñu dunde tool yi mën a euh, meññ ak dund am mu jox ko astaxfirullaa waaye nga leeral doon ci it ki ñàkk loolu ak sonal ko mu alal dum susurlo susurloo ak njabootam mu jox ko astaghfirullah waaye nga leeral doon ci it kii nga xam ay ati at mi ngi sëy mënul am doom bi mu ñëwee ci sëriñ ba sëriñ ba jox astaghfirullah waaye nga leer ci ki yor ay tool wala ab place te bëgg mu jëm kanam naat mu boole leen yépp jox leen astaghfirullah mu ni mu doon benn baat boo xam ni dafay faj jàngoro yu bari waaye dafay ñoddi lu baree baree bari ndax kenn ku nekk ñoom sa tawat bokkul waaye ñoom ñëpp mu jox na astaxfirullah te teg ko ci aaya suñ borom bu tedd boobu subhanahu wa taala mu mel ni nit ñi jàng nañ ci lu yaatoo yaatu ak lu soro sori nga ñëwit ci astaxfirullah sécuriser bi muy sécuriser jaam bi ci mbugalu suñu borom yaa ngi koy leeral bii passé ci aaya bu tedd boobu mu wax wa ma kaana allahu li yuazibahum wa anta fihim wa ma kaana allahu muazibahum wa hum yastaxfiruun suñ borom waxoon saaba yi wax ko yonent saa salaam ni leen yàlla du wàcc ci yéen mbugal li fekk yonent bi saa salaam mi ngi seen biir waaye loolu seen sens la woon ndax boobu yonent bi mi ngi dund ak ñoom waaye ginnaaw bakkan bu mas dund dina mas dee te saa salaam mbindeef la dafay jóge yàlla ni ko sa ginnaaw it yàlla du leen mbugal li fekk ñu ngi sax ci la gën ci ay leeral yu yaatu yoo xam nit ñi jàng nañ ci ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm di ñaan suñu borom gën a yaatal dënn bi yokk xam-xam bi mbokk yi gis nañ seen bopp te sant nañ ci bu baax waaye ñuy xaar it nga gën ci indi ay ay détails yu gën a xóot ak xeetu astaxfirulaa yi mën a jëfandikoo yoo xam ne am na njariñ ak siru yi nga xam ni nëbbu na ci biir ak lim yi nga xam ni maanaam baax na di ko jëfandikoo ndax nee na caabi bu ëppee du ubbi bu yeesee du ubbi mel ni am na siru yoo xam ne mooy lim yoo xam ne boo ko dóoree rek directement dégg nga bu dee alal nga bëgg di nga ko am bu dee ak yëkkatiku di nga ko am bu dee doom nga bëgg di nga ko am bu dee ya bëgg a jañ lu mën a doon di ko mën a am ñu lay xaar ci loolu sëriñ bi euh, bisimilah. barakallah Seexul Xadim ci biir laaj bi ak li ñuy tuddee introduction bi nga def dafa am ay tomb yu bari yu ci feeñ wax nga ko ci biir yàlla bañul ku ko tooñ ah kay bañ na ko lim bañ mooy tooñ ko te jégalu laa yuhibu saalimiin alxuraan la ko wax suñ borom bëggul koy war laa yahdi kaydal xaainiin yàlla bëggul ab yàqkat laa yuhibul fasaad waaye li mu ci doon boo ci xësi suubu suñ borom dafay bëgg nga rectifié wu li ñuy wax rétrogradé xam ni fi fii ma jaar du fi nga del si ni yàlla dama juumoon waaye tegaat ma ci yoon bi boo gisee hadis bii nga jàng keroog te yonente bi sallallahu alayhi di wax ni borom bi dafay wax ni su ma leen indi woon jamono du ngeen ma tooñ dama leen di rey yéen ñëpp ngeen faatu ma di fi ñeneen ñu may tooñ ma jéggal leen maanaam bi mooy yërmandeem la bëgg a wone maanaam su fekkee nekkoon te tooñu leen ma du ngeen xam ne man na maa baale loolu la ci jublu bu kenn dul tooñ yàlla grâce yi du am comme grâce amul dañu mel ni kon amul ku ko war a def yàlla won leen ni mën na maa gracier mu ne nangu naa ngeen tooñ ba noppi jox ma ma maanaam won leen ni mën na maa baale moo tax mu mu mu mu def porte de sortie pour nangu ñu tooñ ko mm-hmm. ay waxtaan gi ñëw ci kanam di nga xam ni li ñu dal li ñu li li li ñu dal liñ ko teg kenn tooñ yàlla boole ci yëpp yenn saa yi tooñ dem demee noonu maam Adama ak Awa moo ñu indi suñu alkande ji bala ngaa lekk liggéey bala ngaa naan gasteen bala ngaa wér faju bala ngaa def dara solo mënoon naa ñàkk bu foo waa amul woon yooyu yenen waxtan la mi ngi ñëw ci kanam waye pour wax la ni togn limuy def ci nit moy fokk mu laal deratam mbaamu laal alalam mbaamu laal njabotam wala mu laal deram sa yo tooñee ñent yi seet na nga sentu ñi di fokk fu am fu la yàlla attaqué ku dem ba ya xamatoo jëm delu ci yalla su bare rek dafa bari ma defar ko kon motax tax baatu maa ngi sàkku njéggal bii nga xam moy astaghfirullah moy ma ngi sakku djegal na excusez-moi waxoon naa ko man nga ko wax ku ne nak mu deugar bop waye yalla bako waxe mu accepter xam nga boy fatlikou yent yalla Moussa digante mak farawna sen jàppante bu rëy ci Bahru khalsum bi gëna gisatul ci guuy ba fir awna nur ñu andon ñepp lap ba nak won nak ci ci muy topp Moussa baal ma Moussa baal Moussa suñ borom dafa wax Moussa ni ko da nga koo bindut yow bindoo Firawna mi sàkkoo ko itam waaye su ginnaaw ñaan na la ma ëpp cent fois nga làng su la fi ma benn yoon ko xoolal kooku baax borom bi nee na su su Firawna yeewu woon bàyyi fu Moussa ne la wala laa ilaha illallah kon ma baal ko parce que am na ku def lu xaw a mel muy keroog am sax bàyyi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ind waaw te yonent bi gën fuuf Muusaa am saa gën ña ñëwoon fee te keleen ray bi mu dil si ci kanam yàlla dégg koy loxo suñu borom da koo baal fa laysa laka al-amru ah waaye aya baa ngoog yàlla ni rasulullah yoroo sawara ba yóbbu nit aajana sama loxo la ne ku nangoo tuub ñëwul li mu def li mu réeréerée baal ma garage ko rek dogalaat ko ci mbedd mi kon nag loolu boo gisee kàddu gi day indi ni foo mën a toll ci kaw suuf rek nangu la déggalu yàlla sa borom bu dee moom nga ko seqal. jéggalu nit ki bu dee fi moom ko seqal ma wax nag ñaar nañ ko xàmmee àq ak bàkkaar. du benn non du faj àq bàkkaar lay faj àq moom sëñ Xaadim baal ma moo koy dindi. Mm-hmm. àq nit nga koy amee bàkkaar yàlla nga koy def. Mm-hmm. kon nag boo yow yow mi jéggul da ngaa war a xam ni. duma togn mukk as wala ma togn soxna ci demna yalla astaghfirullah dedet kon yalla du tuddu hadulu mandom gogu day day day reer kon non la ko diko xamé tamit yeen ñuy diglu ba ba fo ci defé fo pa nga xamni fi la ko rawalé yalla mo nga togn jam ñaan ko ñeegal mu bañ ñaan ko bañ ko ci yalla ba wayo yalla fayal la ko to to dessé la kon nak motax tamit ñeen ñi nga ci astaghfirullah nga am lepp ko koy safara yépp na lool mm-hmm. maye doom ko ñaak ko na ko ñaan mm-hmm. ku ñàkk alal na ko na koy def ku feebar bu nga na koy def ku xam ne xamatoo foo jëm na koy def dëkk bu bekkoor nañ koy def afax la a xabaar ba aaya bi ci bari feeñ ci biir xam ne gis naa mu mel ni moom mi suñ borom koo tas def ci ay secret yu bari bi ci gën a gàtt rek la dafa astaxfirullah xam nga wax naa la keroog ni la tudd ko junni yoon moom astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ki toog jàng seydil istighfar benn yoon te mooy allahuma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaqtani wa ana xabduka wa ana alayya ahdaka wa wahdaka mastataxtu wa ausu bika min sari ma sanaxtu abuuhu lakka bi nihmatika alayya wa abuuhu bi sanbiya faxfir lii bu dee ku wéet moom dong. Mhm. waaye su dee kilifa koy def du wax wax fir lii fax fir lanaa lay wax. ñu bàyyi ci ginnaaw waaw kay tey nit bu jiitee njaboot comme kilifa ak diine. Mhm. wala njiitum réew wala ku jiite benn mbooloo moo xam ne dañu am ci yow yaakaar mhm. sooy jéggalu yàlla doo wax fax fir lii fax fir lanaa ngay wax. yàlla maa ngi sama ginaaw ñëpp baal na parce que fa innahu laa yax fi sama ilanta nun ak ñi ma àndal amul kenn ku nu mën a gracier ku du deew gis nga benn yoon bi ma jàng soo ko defee ci sijaada te ànd ak njàpp jublu penku te teewlu moo ko astafurlaa mille fois ñoo toll. moom moom ñaan googu. ñaan gi ma wax nii. mooy Seydul Seydul Istighfar. allahumma anta rabbi ba mu jeex ba mu yem fi ma la wax nii une fois. mooy seen sang ñoom mooy seen sang ñoom. astafurlaa yëpp bu ñu nee regroupé dajale leen. dañuy wax ne mooy seen patron. seen patron terewut am na yeneen du génn. Mm-hmm. xam nga bi ñuy wax nii. astaghfirullahul asim mm-hmm. beneen la. Mm-hmm. soixante-dix fois rek. soixante jëkkal la. am na bu ko raw moom lay def ci laasin ak xadaratu jumaa ak ni yoon def sax wax ne ku ko wax téeméeri yoon sa yaram aramal la sawara mais ci contexte yi la. Hmm. mooy yow mi koy wax nga yëg ni da ngaa war a rectifier wu. xam ni yàlla ngay ñaante dama koo tooñ. nga toog jàng ko téeméeri yoon waxtu takkusaan hmm. astaghfirullahul asiim allasi laa ilaaha illaa huwal wa atubu ilayhi da boole jéggulu yàlla ba noppi dafa ànd ak sikkar ànd ak tuub ñetti martaba la yor nga ko xam nga baatu astaghfirullah al-azim mooy yàlla mu ponkale mi laa teg sama bagage yi tuubukaay yii bëgg mu defaral ma sama bopp ñu ne kan nga kan ngay wax mu ne alasi wax kay mooy ponkal mi buur bi nga xam ni laa ilaha illa huwa amul kenn koo xam ne mënees nga koo jéggalu mu jéggal la wala nga bañ ko jéggalu mu man laa lor wala nga ñaan ko mu may la wala nga bañ koo ñaan mu lor la wala nga wéeru ci moom bañ a daan wala nga wéeru ci moom mu daan la alxayu kurul kii dundal lépp lu dox ci kaw suuf alxayum te lu taxaw moo la taxawal xoolal xoolal li nga li nga wax yàlla bàkk nga ko mm-hmm. fële jéggalu nga ko ah mm-hmm. loo bëgg nga ne groupe ci suuf nag ni ko wa atubu ilayhi xanaa nga baal ma rek. waaw kay. astaxfirullah al asim yàlla képp nga ci tudd. Mhm. alhayyul xayyum ay martaba ngay wax. Mhm. wa atubu du ilayhi sa doyee yow la. Mhm. ni nga doyee dee nga def ci kanam ponkal mi man. cent fois <laughs> suñ borom dalay jéggal benn ngo cent fois ku ko saxoo après takkusaan di ko ko wax di ko def yonent bi nee na yàlla yàlla jéggal la seenam araama la sawara te ku ko saxoo def it sa wërsëg dox ما شاء الله وعدو بورسك بكل استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه من نوبك من التوبه حب سالم ديغال جوج وخجوري توبه حب سالم nga xamni jambi tawbata bi sallallahu la yamliku li nafsi nafhan wala daran wala mawtan wala hayatan wala nusuura loolu sëñ bi ku ko wax ko yàlla sax lu bam jox la ko maa ngi lay balu àq di la bakk di la kañ alhayyul xayyuum wa atuubu ilayhi tey tuub ci yow suñ borom ne la yow muy tuubal yaay kan ak nan mu ne maa ngi lay toroxlu di la tuubal tuubalu jaam bu lot not gi na lopp néew doole noonu laa mën a tooñe <laughs> xoolal lolu mom nee ni ma niwe katan non kàttan noonu laa mën a tooñee tawbata salimin waye su ma mënee ba noppi bu wour wóor ma ne carte ke fi ba tukki kaw ak suuf la yamliku li nafsi nafhan mun ma jari sama bop dara nak limay bari bakkaar soo ma ngir sama togn rek àdduna tukki la yamliku nafsi nafhan. wala darran waaye mënumaa lor sama bop itam xamna ni njariñ li ci yow la ne lor gi may wara lor ci yow la ne wala mawtan du ma rey sama bopp wala xayaatan mun ma dundal sama bopp wala nusuura buñ dajalee jaam yi den tànk gurgur yóbbu sawar yóbbu àjjana aw ma ko ma yaakaar ku lu sa jëm benn yoon ku ko wax ñu jéggal la boo dem bàkkaar boo mu sa def ci kaw suuf geneen xeetu istifaar la boo ko saxoo nag maanaam gën ku ko def boo ko saxoo ku koy def ku ne nu mel ci baax nga mel bu nee ci xikma moom Sëñ Tuubaa bi war nga dem ci seet ko jawaat yu bëree bëri da ngay fekk mu di ko ca wax sallallahu alayhi wa sallam moom wax loolu geneen xeetu astixfar euh, la listixfaar la listixfaar dafa bari ay bagage xam nga saar bi nga firi de nii waaw tabata abi zalim laa yamliku li nafsihi darran wala naf'an sama xel ngi ci dem sama xel ngi ci waxi laa yanqusuk wala humu hajjul lazi waaw <laughs> xam nga maanaam problème sa yu amé ba 6 mois wara taxo ki ñu tudde avocat daf ci bax entre waaw coupable coupable bi mhm. ak 6 bi mhm. ak avocat bi ak ñi taxaw di seet mhm. fofu Sëñ Tuubaa dafa taxaw taxawayu avocat buy pelendel jami yalla ci yalla parce que yek na ni leen top ci ay def def ku leen ci yalla top ñu sank te mën noo tuubal seen bop tuub gu yàlla digg ndax suñu ñëw bi foofu. ndeysaan ndeysaan mu yëg moom xaritu suñu borom la mu ne cëpp ci géew bi. sol rob mhm. mais yàlla ñii ratoon mhm. xam naa ne. Mhm. lu ko wax ji bari bari bari xam na nit ni ñoom ñii sa dara ci buggal xaju si seen kaw. xaju si seen kaw xam fi ne fi ne ki gën a rëy ci kaw suuf ëpp fi doole mu xam ne mooy champion. bi métti yàpp du nelaw. nelaw. su tànkam bi métti du nelaw. parce que amul qualité mbaa capacité téye loolu. ko def. kon lu mu mën a def mooy mooy tëdd ak naani garab. suñu tubaab ni yàlla xam ne nii la mel boo ko tegalee fu mu ak lu ko fokk nga bàyyi leen jéggal leen. Mm-hmm. ndax li ma xam mooy. yow boo leen toppee. Mhm. amul lu mu lay yokk. Mhm. te lu leen xañ mu wàññi leen ñoom. adduna bépp bu ñuy jaamu yàlla. Mhm. doon liwul yàlla mbir gi. ci yàlla am ci. tax koo doon yàlla. tax ko yokk yàlla. ñàkk koo jaamu tax koo manqué. tax koo manqué. ah moo tax mu leen baal leen. parce que li nga leen di may du la wàññi. te loo leen xañ moom wàññi leen ñoom. dëgg la jëriñ li nga leen di may mën na leen mën na leen a jëriñ. te yow boo leen may du la wàññi dara. kon nag fa inna fa innahu wa in asaw ko yaa na nga xam ne li xas la la. lu bàkkaar yi bari bari sàkkante lu ba adam waaye la gisul ko bi ko kenn ci ñoom xalaat laa bokkaale na xam ne yow yaa nekk. Mm-hmm. loolu la wax ñoo di nekk la. Mm-hmm. su ko defee loolu yërmandeem ak moom si bi mm-hmm. ndax damay wax ni. yàlla ku la ko gën a jege moo la ko gën a xam. waaye ku la ko gën a ko gën a ragal. yàlla. na nga jàpp xamul ci yàlla dara. ku xam ci suñ borom dara ragal ragal loolu la fi ñu waxoon dafa wax ni ñett àdduna alaaxira ak suñ borom a yam àdduna mi ku ci xam dara doo ko dégg sa dara ndax day wore ak lu mën a doon nag nay alal nay taar nay juddu nay am am nay mbooloo da ngay xëy xëy ñàkk lépp kon jërta dénk say bagaas alaaxira ku fa xam dara doo ko jombale sa dara loo am yóbbu ko fa. barab boo xam ne ku dugg dootoo génn te loo yóbbu loo fi yóbbu dootoo doo fa fekk loo fi yóbbu doo fa fekk lu waaye xam yóbbu ko. mu ne yàlla mii nag ku xam ci moom dara doo ko ñemee ci dara. ndax mën na laa xëyal nga wér balaa ngoon jot mu rey la. mën na laa xëy amal balaa ngoon jot mu ñàkkal la. mën na laa boole mbooloo mu dul jeex xoolal président yi ni mu leen di def. benn seconde nga yii fi nation deuxième seconde ñu baatale kàttan nga yenn say daal xam nga diggante e malikul mulku ak tusilu bi dañoo na ñi benn ben la non la yàlla suñu borom mel moo kuko xam ñemeel di du bari looy tudde astaghfirullah yonte waxoon na ci mbujjam ni mangi ngi di dénk ngeen di baril ñaar muy astaghfirullah ak la ilaha illallah baril ku nekk loo bëgg di ko am jërëjëf euh, leer na yaatu na loolu ndeysaan euh, yan na suñu borom yo xam-xam bu baax baax bu mel leeral yi ci indi am solo yàlla bëggul ko ko tooñ waaye kon lim gën a bañ mooy tooñ ko ba noppi ñàkk koo jéggalu mhm. ni mu sa bëgg ku ko tooñ ndax innahu laa yuhibbu zalimin jërëjëf kan ah? mhm. ci ci ci ngandaayam mhm. jant soo nga baraaye ba jekk sol say koket dugg ci dëkk bi ruur tooli jàmbur tooñ mu man laa rey fa nga ko defee ak kàttan gi nga ko doon mu rëcc ko ak moyens yi bàyyi li nga génn taal sa oto ànd ak wér dem ba sa kër moom may la nga tëdd nelaw mu man laa rey fi nga fi ndax ñu bari romb na la fa dem àllaaxira reyu la ba ca ëllëg sa di xaar ndax di nga tuubam déet ëllëg defaat ko te defu la nam lay foon nga dayam lay wane nungu na nga tooñ ko mais day ndax di nga jégaluwam déet su ko nungu loon ca saasa la koy def koo koy su borom tabaaraka wa taala lu tooñ rëy rëy rëy rëy tuuba ko man dëgg mbokk yi kon ñoo ko déggandoo ñu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax baax waaye bu ngeen dégloo ci biir waxtaanu sëriñ bi mi ngi leeral danger yi nga xam ni maanaam kii def bàkkaar ba noppi ñàkk koo tub ñàkk a def astaxfurlaa mën na ko ko indil ci deltu ginnaaw ci ñàkk alal ci yóbbe ko bekkoor ci yóbbe ko gàtt fan ci yóbbe ko ñàkk bayre ni ñuy ñàkk laa sopp mu mel ni kon ci biir waxtaan sëriñ bi dañ ciy dégg ni da fay waral yoy yep kon seigne ma nga wax ni kon boy tuub da ngay am pas passu tuub te jëm ci suñ borom bi bi mu leeral tawbata abdin zalimin gog yéen ko déggandoo kon mu melni da nga wara melni ku doxum yag nga degg aw xal ni nga nan bari dalee fee nga xamni ku la ci bëggono a dëgg la waat da ngay lank ak reccu ngay reccu lutax tax fi ngay jaar ba tek sa tank ni mu lay metté booy def astaxfirullah yëg-yëg boobu nga war a am kon sa diggante ak suñu borom subhanahu wa taala mu mel ni it yóbbu gi mu la yóbbe ñàkk ak bekkoor doy na ci sëkk misaal ni ko sëriñ bi jàngalee suñ maam Adama alayhi salaam àjjana la ne yàlla may ko lépp ak teraanga yi fa nekk yépp waaye keroog bi mu defee bàkkaar te la ko yàlla tere woon muy garab ga mu laal ko dafa mel ni sëriñ bi ci la suñu borom génne ci moom yére yi mu soloon daw ba ko fa couronne bi mu takkoon bopp ci bopp muy couronne or daw daw ba ko fa lépp lu newoon ci moom xeetu teraanga ak xéewal yi daw di ko daw ba ni ko suñ borom sanctionné jële ko foofu wàcce ko ci àdduna kon mu mel ni bàkkaar day tax nga raf rafle waaye bàkkaar day day tax nga jóge ci kaw wàcc ci suuf day mel ni bàkkaar day tax nga ñàkk bayre waaye day tax nga deltu ginnaaw saa su ne buñ buñ ci jàngatee kon sëriñ bi am na solo jërëjëf kon bu ko defee nga ñëw ci tuuti rek maanaam yi nga indi noonu ban lim ngay jox nit ñi comme cadeau xam ni saa bu nit ko amee aajo wala mu jaaxle bu ko defee rek dina ci am ndam. barakallah xam nga boo demee ci aaya bi yont yàlla noo ma waxoon waa këram ne ngeen jëfandikoo ko fa xultu astaxfiru rabbakum innahu kaana xafaara aay bi soo ko seetee dafay dëpp ak ismu jalaal ismu jalaal nag gën naa siiwe ci ahamun saqakun allahun yasun ñu bari noonu lañ jàpp xam nga soo ko déchiffré moom dafay jox mille quatre cent quarante soo adate aaya bi loolu la lay jox mille quatre léegi mille quatre cent quarante divisé par dix six cent quarante waaw 644 lay jox. Mm-hmm. ndax maa ngi jum ca ca wax ja. 6440. waaw kay jërëjëf 6440. Mm-hmm. ay boo ko boo ko boo ko adatoo ba mu jeex 6440 mm-hmm. lay doon. soo jëlee ahamun saqun aluf ndeesun bi. boo ko defee. moom moom li mu 10 moo lay jox adatu aaya bi. léegi nag kon yow soo jëloon astaghfirullah bu ko sikkar li aaya bi. sikar ko li mu ahamun saqakun alahun yasun 6440 rek. est-ce que. déggal wax bi. adadu aaya bi mooy 6440. waaye booy sikar astafurlah bi wàcce ko. wàcce ko ci ismilaahi ahsan bi. waaw muy 6440 nga xam da ngay toog chaque jour nga am problème bu jeex nga tëju jàng ko. Mm-hmm. astafurlah astafurlah astafurlah la 6440 maanaam 4 40 6 6000. nga liggéey ko ci astafurlah waaw. Mm-hmm. boo concentré wu def ko sax bala nga def nek seeram day tang jir. ndax ci tax waaw waaw jalaal la. loolu si ñu xam ndax weesu xam nga dafa am jalaaliye nooraaniye kamaaliye yow mel dafa am jëf yi bii la kon lii mu jalaal nga ko nga ko sikkar boo gisee xarit ñu wax ni fi ne jëfandikoo tur tax xamoo ko la mi ngi mel arme bu teg xamoo ni arme bi sophistiqué nga ñëw rek jël ko commencé tirer moo tu gaañ sa bopp dangaa war a jàng tur yàlla ba xam ko ba pare am kilifa nag bu lay orienté. waaw min ha dalilun ka say xisi futuaati waaye ñun bu dee sama classe dañuy dem ci benn téere fekk fa rek jënd ko gis 99 noo yi nga jël tàmbali moo war a dof yi nga gis ci mbedd yi wala dajeeg ku mel ne aas nga xam ne fu géej gi riir mu la tur sàngam des waaye baax na nga yenu ko déedéet da ngay wut kilifa gu xam ismulaay ahsan mu teg la ci biir so bëggee dem ci yàlla moo ci gaaw so bëggee am alal aduna moo ci gaaw so bëggee saafara kopp moo ci gaaw waaye jëfandikoo loo xamul la nunguut da nga ko war a xam ba noppi da koo jëf léegi nag kon lim boobu 6440 boobu maa ngi leen koy may ku ko man nga toog jàng ko astaghfirullah benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñaan sa borom yaakaar naa di nga gis li la yàlla defal ci bu gaaw ci kattan ci borom tabaaraka taala xam nga sirru ak secret du benn tubaab bi sax siru la doon seet. siru la daa wër wër gisu ko mu fab seroo tek ci ginnaaw bi ginnaaw un bi. siru la doon seet gisu mu lépp <laughs> moo tax un bi moom ñaari sero teg ci muy cent boo koy yokk teg ci benn sero muy mille teg ci benn sero muy dix mille topp ay serom serom parce que gisul seru seru boobu sëriñ see ko doy na foofu la mbir mi nekk <laughs> bu ko dee kon sirru mooy buñ la bindaloon allah nombre bi day nekk 66. mais am koo ko mën a jox ci biir. jox la 6. jox la 6. diggante aliful maxfiye googu ak xaagee ay mujj muy axul gi. fi ne 6 boobu soo ko xamee sikar ko moo gën a gaaw sikar 66 bi. Hmm? laagi lu mu ci doon laa mooy déedéet mooy déedéet. ki ne déedéet kay génn ko ci waaw kay jël ñu nangu wala kon nga naan déet waaw déet waaw yow kay neel waaw rek gis nga loolu mooy sirru boo gisee ñu ay bastatoog yey mbir baytu xut boog yooyu nekk ci yëf waaw jàng ko dafa baax day tax nga gaaw a dem xam nga bu ñu leen waxee jëlal tur yàlla sànkam def ko 175 ci Allah Allah boo ko déchiffré du loolu mais 175 comme mooy am wàllu dund yàlla alal ngay wut moo gën a gaaw nga sikkar tur yàlla bi ci allah dangay faj ku ku wopp da bind sifa min kulida boo ko dee siifree lam la jox loola ngay jël sikkar ko ci tur ki feebar ngóor daa feebar da ngay jël wa sifahu min kulida ko ci turu ngóor maanaam bu dee bu dee bu dee bu dee mille la doo ko def da ngay jël dim bële sikar ko li nga adat adatu tur bi boo ko defee ay fan def ko ci daal yàlla mën na ko defal tawfeex mu wér loolu mooy sirru sirru daal caabi la buntu mën naa rëy waaye caabi ba koy ubbi lu tuut lay doon du buntu bi lépp kon loolu jar a xam ak wut kilifa waaw jërëjëf kan leer na lool te amati na solo kon mbokk yéen a ko déggandoo code bi leen sëriñ bi jox ci astaghfirullah mooy cent 6440 nga xam ni aay bi suñ borom digee alal ak i doom taw naat àjjana ak lépp rek te tambule ci astaghfir rabbakum ila anhara moy don 6444 serigne bi wax ni boko diviser par 10 day don 644 644 di jalal di turoo ñi wax ahamu sax kon yusuf mo melni kon bo ci gar la ci limu 6440 am nga fukki jalal de ngeen serigne bi ci wax su dee nak ku man alquran ku man alxuraan bu noppee na jang ay fukki nak ñent na sikkar dim boobu bu noppi bu julli jonante bi fukki yoon ak ñeent rek. yéen a ko dégg déggandoo sëriñ bi kon xam naa li ñu amoon ci temps euh, waxtu wi xoj nañu xanaa rek euh, di sant ñi seetaan ñëpp te di leen gërëm bu baax di ñaan yàlla suñu borom defal ñu dégg ak topp di ñaan sëñ bi nga yàgg fi loolu te wér. waaye benn point bu ndaw rek ñu tëje ko te mooy lii xew jamono ji ci waa daara ak coow yi mu mel ni ñoom am nañ initiative bu nu jël te yàgg koo jël te jàngal seenu njaboot ak. njabootu nitu yàlla yi képp ku andi sa doom ci daara rek ak di leen éduquer di leen ci yoon. mu mel ni sëriñ bi jamono yi eh, ñoo ngi dégg xew-xew yi nga xam ne xew na ci daara ak waa eh, ñenn ci réew mi donte Sénégal am nañu eh, quatre-vingt-quinze pour cent musulmans waaye mel ne am na ci ñoo xam ne dañoo bedd ko fële seen doxalin daal mel ne dañuy xeex daara wala yu mel noonu mu mel ne ñoom dañ ni ni waa daara di yare seen njaboot ak ñi ñuy jàngalee du noonu ñoom dañ leen a dañ leen a bëgg a jox beneen maanaam méthode pour ñu doxee noonu ñu bëggoon nga indi ay leeral ci ba xam waa daara ñoom initiative bi ñu jël ak ni ñuy doxee noonu la wala état bi li ñu leen di proposé ba tax ñu leen teg coono yi ak di leen sanctionné bëgg leen a tëj noonu la am déet loolu lañ bëggoon nga indil ci tuuti ak euh, euh, leeral. état bi daa yàggut. xam nga li képp ko xam buñ lay fal dañ la naan le 6 ngay tàmbali date ko ci kayit soo amee 5 ans nga jeexal kooku ta taxawal dara ki dul jeex du jeexal te moom moom moom waxal boo xam ne man enseignant la moom yàlla ko wax arrahman allama alquran yàlla nee na man sëriñu daara la ba noppi jàngale wa wajadaka daalan fa hada fekk na résultat xamul dara ma intégrer ko ci sama université ba mu raw ñëpp kon koko ndax jàngale kooku kon bu fekkee dafa wax ni njàng ni la bëgg ngeen defe ko ban def na test def diagnostic essayé ko ci nit di nga dégg ci njàngu yonent bi ni jàng du wees yonent bi muy dem daara ñaata at la am fukki at kon jàng weesu mm-hmm. mu jàng te jàngale yi diggante ñaar fukki at ak ñett ci la jàng ba commencé jàngale ñi mu jàng raw ñëpp muy 63 ans yooyu moom waaw moom mi nga xam ne moom la yàlla yónnee woon mi nga xam ne moom nee na jàngalekat laa dàq fee jàngale yónnee jàngalekat bi muy jàng ko def dugal ko ci pokos kon jàngalekat foog ab ndongo daara foog ñu def ko ci pokos da ngay naa dafa sensé déedéet parce que ki dàq jàng ni ñi taw leen ki rek ki ñu digle jàngale am pax la dugal yi rasulullah yónni fa ponkal ma xoj ko ba nopi soo ko ko da ko ne da ngay jang for force wa fini ni gisato fi ben jangale kat buy forcer ab elef kaay nga jang for force yonent dañ ko ne jang for force mo nan jang xewu fi kat nu nuy jang ñu ne ko jang for force xoj ko ba mu ak crise daw dem këram seri bokkam taxul nu top ko nak mo dem ba tëdd ci poju soxnam waji ni jaret ni ko jang rek yaa yaa mu sàmmil xum yaa yaa mu desir xum lu ne laaj dañ na daa daw jàng ñu jëli ko yéen bi salaa salaam ca xuntuma la dawee way li ma gis way fu ma jëm daw ba dugg këram wéeru ci pooj soxna si ñu xëpp ko mbaaj bi eh, bi fekk ko fa ni ko muril mbaaj murim li ko jàng rek mu yuuxu mujj ñëpp a ci jàpp parade élèves yi ak soxna si luñ mujjee soxnaam ni ko xam nga lay musal laaj ko loy jang nga jël leçon waji kër ku dëgër bopp la jangale kat def non élève waaw ku daj lolu ñun dajuñu ko waaw dañ ko xoj dañ ko kirisloo dañ ko fekk kërëm kon nga daara bu jaaré fofu du asar te du lu jombe xey xey mokal yalla def ko kenn kon ki ñew ni sensé leen li fi nekkon bu jëkk xam nu def dimbali nu ci moyen ak ay place suñu amone université ni ko ñi amé am moyen yi ñu am kenn du door kenn parce que élève bu jógee këram di jàngi français day yor saak bu rafet daal yu rafet costume bu rafet xëy lañ ko la këram dem toog ci table ba fekk fa kuy bind ci bu demee ba midi ñu may ko mu def pause añi dellusiwaat donc daal ku ko defal yow joxuma la nga lekk joxuma la nga naan wutaluma la kalaas bokkoo sama yëf waaye boo génnee ci bedd ma duma la loolu xeex diine loolu la nekkee ñun. Mm-hmm. suñu xaalim daal kon ñoom dañoo juum te képp ku arrêté njàngum alxuraan wala nga arrêté ki jàngale alxuraan nga arrêté ki ñuy jàngal alxuraan mooy arrêté nga diine. ndax l'islam moom alxuraan ko composé moo ko accompagné. bu doxul mm-hmm. te li gën ci réew mi. Mm-hmm. sëñ Tuubaa nga tudd Xaadim Rasuul mm-hmm. ndongo daara lépp nag. maam El Hadj Malick ca ndongo daara bi boo demee euh, ñaseen kii canaba sekk ndonga daara la ak fépp ci àdduna rek loo fi gis réalisation bu baax rek ndonga daara ko fa def. ñoom ne seen école amagul génneegul ko toll noonu ñoom. déedéet tubaab génneegu ko. ba léegi nii bu demee ban la am nga bac plus nangam doctorat nangam nangam te xoolatu réew bi fi nekkoon rek nda ko commencé ca ñoom degol ba fi ñu ëgsi doxal ba gis seen jeexit ci dëkk bi xoolal ñeen maasee la ndonga daara li ñu def. ba fi mu loogi ci dëkk bi mu dox ba ci sax boo boo paasee sax ponkal yooyu Sandaga gii boo fa demee Colobane gii euh, foo fi gis cantine bu rëy am ndongo daara ko xam nga gars yi man moom a bintoon except mm-hmm. demal ci télé xool assemblée mm-hmm. diw na mm-hmm. na 600 millions diw sàcc na 400 millions diw sàcc na 20 millions waaw waaw. rek waaw kay fi dama nii ñoom ñoo ko waxante seen bopp. Mm-hmm. actuellement ñu yor régime. te jàpp gu ndongo daara bu waaw ndongo daara moom bu xëyee. bu dee ki ci télé bi footam la yor boo amee sa cent jox ko mu yàlla na nga gudd fan. Mm-hmm. du la xewat de. Mm-hmm. su ñibbee këram yalwaan ba tey lekk ci ay potam yow dimbale ko dara ne ko nag ci pot yi te du ma la te ñeenti sàcc six cent millions ngeen bàyyi ko ci. loolu man maa ngi leen di ñaan ñoom ñu ges suñuy xam ne ci régime bi lan bokk ci réew mi lan bokk te buur adduna yàlla def ko sant ku nekk ci réew ma 9h 10h ci war laa war ta fekk ab xale ci mbedd mi taxawaalu te duggul ca classe. parce que moo woon ne moo ne woon jox leen ma réew mi ma defar leen leen. ba noppi foog ñuy fal leen lu koy sànni leen dédommagé wutal leen ay bourse ñeemu leen yéen toog leen. loolu du yoon kon daal man suñu xaarim mooy ku arrêté na ko daara mbaa sëriñu daara def nga loo xamul. te yalwaan dégg naa benn kilifa mu ne yàlla diglewu ko daa juum. wa fi am walim xaqul xaqul li saa'ili wal mahrum ah waaw al mahrum mooy ki amul dara li saa'ili mooy kiy laaj waaw ah, kiy laaj kay sañ naa dem ci wa fi amwaalihim mm-hmm. la wax nga dëgg de ah, ku yorul dara yàlla nee na seen alal yi ñi amul am nañ ci àq mm-hmm. ñii laaj am na ci àq ki ñu xañ am nañ ci àq waaw ki amul dara ñu xañ ko ki amul dara nga xam ne dafa sañ laaj nga ne ko yow kat yàlla wax na ko waaye yow dangay toog ne ba noppi mm-hmm. tudd kuy jàng mooy tudd kuy jàngale tudd kuy joxe mooy tudd kuy laaj. mënoon ni diw day joxe ba noppi te gisoo fi ñu ko ñuy jox. ñoom ñoo xamul li xew rek. waaye yàlla tudd na ko ci alxuraan. dëgg la boo fi am wari fàppale sawil maxro. jërëjëf kan jërëjëf kon doy na sëkk ak yóbbal ci képp ku yëngu ci daara rek di jàng alxuraan ba di koy jàngale nga defaloo ko te yóbbu ko waaye képp ku nekk safaanu ñooñu it doy na sëkk nga tegg sa tànk ci booy xeex daara te jéem leen a jàpp dem leen a bëgg jëm leen a jàppale ndax ñoom kat sallallahu alayhi wa sallam nee na ñoom ñoo gën ku dul ñoom xayrakum man taallama alqur'ana wa allama wax na ni it ahlul qur'an humu ahlullah ñoom ñooy njabootug yàlla suñu borom ci kaw suuf mu mel ni mbugal yu bari ak balaa yu bari bu wàccul ci kaw suuf daara yi bokk na ci ci ci di ko waral ndax nee nañu suñu borom saa bu meree ab dëkk mbaa ab gox ba na fa wàcce mbugalam yër asamaan ngir wàcce ko gis taalu daaru yi bërëb yi nga xam ne ñu ngi fa jàng alxuraan leer ga fay jolli day bëgg ba meram giif mu far jéggal ñëpp kon daara ji nekk ci nasru képp ku nekk ci gox bi rek daara ji mu ngi lay musal ci boo ko yëgee ak boo ko yëgul mi ngi lay aar ci boo ko yëgee ak mi ngi lay ñojjal ay teraanga ci boo ko yëgee ak ak boo ko yëgul kon fonk leen teral leen te jàpp jàppale leen lekk moo war te moo yella ndax boo juddoo ñoo njëkk ci yow wàccal la kaamil te boo faatoo ñoom nga yaakaar ñu gunge la wàccal la kon loolu la sëriñ bi indi ci ay leeral jëre ngeen jëf ñu yemale foofu émission bi. fu ñuy jàngee alxuraan. Mm-hmm. nga ne fii dañ koy jàng kër gi. Mm-hmm. ñu taal ngaañ ji mooy ay matt yu mag. matt ñu taal projecteur. Mm-hmm. waxul ñuy jàng de. ku jaar ci wet ga siin lumière bi. yàlla jégal na. lu ñu fa def jàng alxuraan taal bee. ñu baal. te barab bu mu nekk suñ borom nee na du daay du alku du bekkoor garanti na ko ci barke alquran wa nunassilu min alquran ma wa in min sayhin ila indana xasainuhu yàlla wax ñaar luy nekk ci yaram di di ko gaañ di koy faj mu ngi ci alquran demal fañ koy jànge maa ngi ñu jàngal ko maa ñu faj la ci képp ko lu waay bëgg ci alal maa ci wërsëg mi ngi ci biir wayn min say la indana xasayno magasin bi demal ci borom alxuraan defal la mu ne yaar yi du di jariñu ci alxuraan te ci faju lu dul fay mooy yàlla boobu moo gën a gaaw mooy sangoo pétrole waaye bu fekkee daara ji ñàkk alxuraan mooy yàlla amu fi lu fa nuy faj ko suñ fi nee mooyee nag mooy boom bi gën a gaaw ci àll ak leen fu ñu jàngal alxuraan nga def mooy yàlla ak mooy ku mën a doon léegi ngeen al ko yéen ñëpp waaw moom làmp bu tàkk la da ngay da ngay daal di feeñ. da ngay feeñ. loolu mooy musiba bi. waye kon nak na nga xamni ni fu ñuy jangé yonte bi ko xonte mm-hmm. kun haliman mm-hmm. aw mutahallim. wala kiy jàngale. ok mm-hmm. aw muhinam. wala ki leen dimbali. aw muhiban. wala ki leen bëgg. fala takun khamisa bu nekk juróomeel bi. moy ki leen ki leen <laughs> waaw. jango jangale woo. kun haliman del del jang aw mutahallim. wala ngay jangale aw muhinam. wala nga leen dimbali. aw muhiban wala nga bëgg leen. fala takun xaamisan fatarda. bu nekk juróomeel boo ko defee am. ok <laughs> barakallah kon foofu rek la ñuy mën a émission bi. waaw salaam ñu fay. baytal ladi laa yaqra'u fihi alquran yaqilu xayruhu ويكسر سره ويضيق على اهله هذه سبب جامعك جاغلو 2019 نعم. نعم. نعم. اكسر من تلاوة القران في بيوتكم فان البيت الذي لا يقرا فيه القران آه، يقيل خيره ويكسر سره ويضيق على اهله آه، آه، خيولي دي باري بغنتي بي باري باي بي باري لب دي دوخ فون كو دول ديفه نك كير كو دول نيو aywa bari ba noppi kër ga xat loolu jàpp yaa ma ne fii jàppal say dal yaa jël samay dal lu tax nga def ma ko parce que kenn du fi jàng alxuraan mm-hmm. yàlla noonu yàlla xiirtal ci jàng alxuraan ak bëgg ñu koy def di sant baax techniciens yi kon mbokk yi seen émission waxtaanu diine ñu àndoon ko yéen ci Nasrou Média TV ak Serigne Assane Kane borom Nasrou Média la radiyallahu anhu euh, yam na fii ndax temps bi xaj nañu ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal tawféex ak taysiir ak fajuk xaajo di ñaan suñu borom réew mi yàlla dolli ci jàmm di sàkku ci yéen it ngeen abone ndax njariñ la loo xam ne mën naa jëriñ ku nekk àdduna ak alaaxira képp ko am site biir nga envoyé ko sa mbokk mbaa sa xarit mbaa képp ko yéene jàmm rek ngir mu abonné ci bu ko defee loo ci am lu mu ci am ci aw yi moom bu ëllëgee suñu borom boole leen ko fay ñu ngi sant ñëpp te di leen gërëm xalifa généro yi xalifa kilifa xaada yi euh, ba ci ki bokkul diine sax ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm di ko ñaanal képp koo xam ni gis nga euh, video bi rek ñu ngi lay ñaanal tawféex ak taysiir di ñaan mu fekk la ci jàmm ak xéewal di nuyu suñu caméraman yi soxna Adama mu sëñ Babacar ak alaaji As ak mboolem assistance yi nga xam ni ñu ngi ci jotaay bi kon sëriñ bi sa kàddu gu mucc rek euh, daal def ñaan ñu daal di tàggatoo. ñu def ñaan ñaanal nit ñi jàmm ak salaam lu ci waay def nag bala nga koy defee ngay musul seytaane ba noppi borom moo wax ni way saa xaraxtal quran fastahis billahi mina seytaani rajim kon képp ku sikar ku jàngal xoon delloo ahos billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani doo ko tàmbali ba ci côté yëpp nañu muslu seytaane tudd yàlla doo ko tàmbali allahuma rabbana axfir lana sunubana wa kafir ana sayiatina wa tawafana mal abrar barke yonent bi alei salatu wasalaam barakallah بسم الله يكفيني الأقدار يا الله سفي البخاء به لي فيك يا الله بسم الله